asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu xam naa nag tey dinaa jaaxal sama xarit yeek sama soppeeg sama naataangoo yi nga xamante ne ñoo may topp ba ma sës ci miir bi di ma xoos dëgg du neex tey nag maa ngi ni yoof a yoof apex ñëw nag Cheikh Abdou Diaw ndax Cheikh Abdou jaw nag tey dafa def gàmm gu rëy gàmmu gu rëy lay def léegi nag ci gàmm gi nag lañ ñëwoon tey. asalaamaaleykum comme ni ma koy waxee saa ne rek tey nag ñu ngi ni yoof ba tey yoof apex batay ñu ngi ni fofu ci gamu gi gamu gi nga xamante ni kilifa yeb fi daje macha allah ñëpp a fi waaw ma bëggono waxtana kenn ku ci nekk wax la lan moy sax laati gamu gi ak nan la gamu gi démé ki ngeen ni gis nak moy suñu nijaay ma bëggon ko ñëk laaj ba paré doga jallat ñene ñom ñoy kilifa yi allah ma lay wax alaykum sama nijaay. wa RTV nak ñoo la doon nuyu di la ziar di fasiyene nak and ak yeen ci gamu gi ba mu jeex tak loolu lañu bëgg macha allah ma doon laaj nag gàmm gi lan nga ci xam. ñu ngi sant yàlla di sant waa rt di leen ñaanal yàlla fa wu gudd wa ànd ak wéré wérle di wax ne gàmm gi lay eh, ki koy def sama jarbaat la maa ngi ndeyam bokk ndey ak bay ndeyam topp ci man muy gone goo xam ne gii programme bi mu ngi koy door a commencé ren li ñuy defal li ñu koy defal daal mooy ñaanal ko yàlla lu mën ren yàlla mën déwén lu ko raw. gone la it nag gu baax gu dégg ndigal kilifaam te fa ko kilifaam yi joxe woon mu di fa jànge alquran di tay ba mbayeen fa la jànge alquran ba mu fa jógee ma nga dem kër Jim Njaay fa la jànge xam-xam fa la mottali ko alloom Jim Njaay di sëriñam di léppam tarbiye ko kon xale la boo xam ne bii dégg na ndigal teg na tànkam fi mu ko war a teg man nag <clears throat> wax ji duma ci sori ndax borom yëf yi dafa ñëw ci yëfam maay seen maay najaayam di magi Abdou Diaw mu kees bii kom teew na man samay kàddu du ci bëri wuutu naa ko sax nag ci kaamil bi jàllale fa ay kàddu ndax dafa egsiwut boobu waaye bu xasee ba teew ci ndaje rek man sama kàddu man làqu na muy Abdou jaw bu kees di sama rakk di najaayi xale yi loolu rek laa ci jàll asalaamaaleykum wa rahmatulah. ngeen ko waxee kon wax ji rafet na ndox kuy joxe cër rek dangay am cër te moom dafa joxe cër macha allah léegi nag ma fas yéenee jàll nag ci suñu nijaay fas ne waxtaan ak moom comme waxtaan naa sama nijaay ba pare damay dem ci suñu nijaay Abdou Diop waxtaan nag moom tam ci kilifa yi la bokk macha allah. sama nijaay loo xam ci bis bi. waaw xanaa di sant yàlla nag bu baax a baax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaan suñu borom subhanahu wa moom mi nga xam ni. moo ñu fay may ñu fekke yàlla ñu may ñu tàmbali ko ci bisimilah rahmaani rahim agale ko ci alhamdulilahi rabbil alamin mu mel ni nag comme li ko kilifa gi waxee rek mooy sëñ moor mi moom mooy kilifa gi waaye ñun nag ñun la yàlla nattoo ñuy partu parolu famille bi ñu koy gërëm nag bu baax moom di ko ñaanal yàlla sama borom guddal fanam wëral cëram dolli ko sutura bu baax ak njaboot gi yépp moom mag mu baax a baax baax a baax la mu bari sutura mu mën a joxe cër dama koy wax toujours ni ko yàlla nañ fi yàgg lool te wér xam naa sax nag su ko fi mag ñi fekkaatoon moom toogaay bi mu toog du ko changé pour seen mag ñi muy ñëw rek mu soppi déedéet moom du soppi toogaayam bi parce que toogaayu kilifa la toog toogaayu nit ku yiw la toog kon ñong koy ñaanal mom ak njabot gi yëpp yal na yàlla def ci fanu guddu and ak barke di jaay rasul sallallahu alaihi wasallam euh ah, mbir nak sa bu da fay am lu tax mu xew nit ko gis nang ko gisé bu féké nu nu nit ku bax wara mel la watal ci yalla ni ay wajuram bax na manam sëñ Abdou mi amna ay waajur yu ci ku ak ku jigen wajjo mu góor wacc na liggey waye waay juróom wu jigéen ni koy wax Seyni Jaw mu ngi nii toog mooy yaayam mu ngi and moom itam nag ak ay rakam wala ay domam ak njabotam yep ci jarbaat ci rak ci set ci dom ñep ngir yalla ak yoonent bi ak bes bi ñu ngi and ak ñun itam suñu rakk jóge and ak moom jóge Thiès muy Amadou Diarra jaw mi nga xamni moom ak ñun aussi ñoo bokk bàyyi ñoo bokk njabootam Umar Thiam ngi nii toog bokk ci njaboot gi di mag ci abdu seen ñaari yaay bokk ndey ak baay ku ñu seede daal ni comme li sëñ Mor tàbbal ci ay kàddu ci abdu loolu moo nekk Abdou bi mu nekkee xale baayam def ko jëloon yóbbu ko mu dem daara daara ja mu nekkoon tam jàng na fa li mu fa war a jàng lépp ci alxuraan jàng na fa li war a jàng lépp ci xam-xam fee mu doon jànge tey kenn du fi des ñëpp dinañ ñëw incha allah ngir yàlla ak yaram ak jikkoom ak melokaanam àgg na ci sax koor gu ne moom day delluwaat foofu nga xam ni foofu la doon jànge moo fay naafi la ba koor gi jeex te bàqara lay tàmbalee ba minal jinati wanaas loolu nag ab tir la bo xamni ne borom subhanahu wa taala rek moko ko baxé nit kon su ko ko baaxee mu koy joxé ba tay ji lepp lo xamni ne sharia dina ko defandiko wala dina sop ko su xey suba su xey ngon ci lay nek kon ñu sant yalla bu baax bi ko joxé joxe bis bu mel ni bis bi bis bi nak jitu wul tay xeyna tay la filen lañ ko defé fi ci Dakar waaye moom ak ay rakam ak ay magam at mu ne lañ daan def organiser gàmm goo xamante ni ca Kaolack lañ ko daan organiser duut kenn mbay moo ko daan def at mu ne ñu di ko ñaanal ci seen baay kon lépp loo xam ni jëm na ci diine wala mu jëm ci charia moom ak ay magam ak rakam ci loolu rek lañuy ñuy yëngatu amuñu beneen programme bu dul boobu kon nag euh, ñu ñaan yàlla mi nga xam ni moom lu sotti moo ko sottal moom mi nga xam ni moo ñu jox bis bi yàlla nañ ko def muy suñu muur ñu tàmbali ko ci bisimilah rahmaani rahim te mu jeex ci alhamdulilah rabbil alamin en tout cas njaboot gépp daal kenn desul ñëpp ñëw nañ ngir yàlla ak yonent bi ak bis bi kon ndam li ci des rek mooy daal ñu xam ni kenn ku ne nag Abdou séq na ak yow loo nga xamante ni li muy doon doon gone bis bi jaral na la loo mas a nekk ak lu mën a xew nga bàyyi ko tey gàmmu mbëlëxe la tey gàmmu mbëlëxe la te lañ dëkk ay njaane njaane lañ waaye yàlla ak yonent bi ak bis bii moo tax demuñu ba lëxe ñëw fii ngir yàlla ak abdu lii nga xam ne loolu la séq ak ñun ci ay teraanga malgré ñun ñooy ay nijaayam ñooy ay bokkam mais respecté nañu jox nañu cër bàyyi nañu xel mu ngi ñuy teral kon bu amee bis bu toll ni bis bii dañ koy ànd ak moom rek ba bis bi jeex wax ji waroon naa ëpp loolu waaye ñeneen am nañ ci kàddu ñu sant ñëpp gërëm ñëpp di balu ñëpp ak salaamaaleykum. allah wax ji rafet na rafet na trop macha allah wax dëgg yàlla Abdou kontaan na ci yow. Mm. waaw kontaan na ci yow wax ji rafet na léegi ma la doon wax na nga ñaanal suñ tele bi RTV. incha allah ñu koy ñaanal fu télévision yi nga xam ni ñoo mag ci réew mi àgg. yàlla na ko fa yàlla àggale. yéen wax ji rafet na macha allah yal na la yàlla dégg ci barke yonent yàlla Muhammad yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def macha allah ok kon bu ma jógee fii nag damay daal dem nag ci nga xamante ne mooy waajuram bu jigéen ma daal di waxtaan ak moom. waa xam naa ne nag xorom war naa sedd ndax doomam wuñ ko dara lu dul mu lay teral rek ak di dox ci yoon bi nga xamante ne ni moom la yonent bi bëgg ak suñu borom. asalaamaaleykum sama yaay boo waaw yaa booy maa ngi lay nuyu di la ziar di la dolloo njëkkal di la ñaanal yàlla gudd fan kenn bañ a séddale dara ci sa ginnaaw macha allah yow nag nee na yow yaay waajuru sëñ Abdou moo taxoon ma ne woon naa ñëw waxtaan ak yow laaj la loo xam ci sa doom ji. waaw ñu sant yàlla rek di julli ci yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam di sant sama ñaari waajur di sant baayam Cheikh Tidiane Diaw ca xam ne lu mel nii rek la bëgg. yoonu alquran rek reg ñor yoonu alquran rek la bëgg bu leen di napp di leen yobbu dara ay juroom ñetti at sax juroom ñaari at duñ ko am su nappee yobbu ma joy kii lum xamagum loo yóbboogu tee nga bay bañ xam dara do ci tek do ci tek benen baat li waxas ba wax rek lool lay def ñuy ñaan ci yalla yalla nañ dundu ci barkel ci am xam-xam yalla jox leen barkep xam-xam xëy amna am na lum ci fekkewut waaye sëñ Abdou Diaw kero ba muy wàcc alxuraan sëriñ ba moo ko indi ba ci kër ga papaam yendu koo berndeel ba ngoon jot ñaanal ko yàlla yàlla mi dogal nag dogal la ko neex yàlla def papaam nelaw waaye képp koo xam xel ne tey jii tey jii mooy jàng alxuraan loolu la baayam bëgg moom lay dox guddi moom lay dox bëccëg ca képp ku ko déggal tim ci loolu ngay ne may sant yàlla nag di julli ci yonent bi sallallahu taala wa sallam comme que seen baay bëgg ñi ngi ciy nër nëral dara yal na yàlla barkeel seen xam man nag gërëm naa ñëpp sant naa ñëpp njaboot gi sant naa leen gërëm naa leen waaye moom mii tamit sant naa ko gërëm naa ko sama bëgg-bëgg mi ngi ci dox lu man sama yër mu ngi dawal ci man maande guddi mi ngi dawal ci yërmande man bëccëg lépp loo xam ne moom laa bëgg loola bëgg na ko lépp loo xam ne mooy sama métit loola métitam la kon nag maa ngi koy ñaanal yàlla fa bëgg a àgg yàlla na ko fa yàlla àggale yàlla na ko yàlla musal ci cat yàlla yal na ko yàlla musa ci pexem noonu yal na ko yàlla musa ci yéen nay bañ yàlla mi am jàmm moom jàmm cay joxe jàmm yal na ko yàlla jox jàmm ju sax dàkk ànd ak wér te wér ànd ak wérle jox ko mbooleem jullit sant naa daal wax dëgg yàlla lii may def nii sax xaw ma ko wax dëgg yàlla sama xel sama dangeen maa sant rek may def waaye damay rajaxu nii xaw ma lenn ci rajo bi wax dëgg yàlla waaye sant naa daal gërëm naa yal na yàlla ay eh, musal ko ci saytaane ak cat yal na yàlla àggaliw yoonam. amiin sama yaay waa dégg laf cat ah, nit moom amul lu dul sa waajur bu la gërëmee rek macha allah laf cat waaw. yow tur nan la yaa booy. ni Diaw laa tudd. ah Seyni Diaw waa kay jërëjëf yaay booy ñu ngi lay ñaanal yàlla na nga eggale yàlla bu kenn sa dara dara sa ginnaaw yàlla na nga toog bañ lay weer ko weeri nga toog ba doomu Abdou ngay fekkee muy ngénte doomam ci barke yonent bi mën na ko to yàlla na ko yàlla def. ñëpp maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp. ah di xam ne Abdou moom. ah sama rakk loo xam ne ji du may lu may ñaanal ko yàlla buur yàlla gën ko taxaw ndax eh, am na loo xam ne wax dëgg yàlla ku amuloon ni bëgg nga ko ndax gis naa démb ba léegi barki démb ba léegi képp kuy mbokkam ay rakkam ay magam ay nijaayam ay ndeyam ñëpp ñëpp a nga koy jàppale fu nekk ñu jóge na fa ku nekk def bés mu mel ni sa bés rek te loolu dafa rëy eh, ji nga yëg ci boppam nit mënu koo jënd xaalis mënu koo jënd dara mënu koo jënd bu la say bokk yëgee ja dëkkandoo yëg la ñepp fu nek fu nek nit joge fa japp sa mbir muy ko mbiram lolu war ngasanti sant yalla waaw ñun dañ ci contane dañu contane mo xamne bi ñu ñaan kep ko xamne ki japp nga ci tay mbokam yalla bur yalla gën la jappalé waaw yal leen yalla bur yàlla la gën a jàppale waaw lepp lu ñu simb rek yalla na gën a jëm ci karam di wax la aussi ni rek la mëna mel yalla nako yalla ful mu dem ba ca ko ko ko sallallahu alaihi wa sallam ngeen jëf wa kon deeng ngeen comme nim ko waxe rek. kii nag nijaayam la te ñaanu nijaay nag dafa am solo ci doom wax nag euh, télé baa ngi noonu RTV la tudd soo duggee ci YouTube bi da ngay tàppe RTV nga def référence waaso soo defee RTV def waaso def référence rek da ñuy daal di gis ñàkku ñoo nag ñàkku wër ba gis ñu nag erreur la ma bëgg ñëpp nañ ñu wër ba gis ñu bu ko defee ñu xool gàmm gi nu mu demee ak yëpp macha allah maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di wax ñëpp pareeguma nag. waaw comme ni ma leen waxee rek ne woon naa leen pareeguma te pareeguma ba tey pareeguma nag maa ngi nii ba tey. waaw kuñ ne buñ ne nag diw baax na dañ naan ndax mbokk yaa ko wax te abdu nag ay mbokkam macha allah dañ ko wuy si ba pare waxal ko wax ju rafet nim me rek lañ ko waxal tey nag maa ngi toogaat ak beneen magam mu ngi nuy toog ndax su ma jóg dékkee ñëpp sama micro ba jóg dem te waxuma maak moom day nuru dara moo taxoon ma ne naa wax ak moom laaj ko lan la xam ci bés bi. maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. ok asalaamaaleykum wa rahmatulah. gannaaw ba ñuy sant yàlla di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nuyu baax di leen ziar baax a baax. di wax ne di ñaan yalla abdu mi yalla na def ko mi mak yalla yalla sam ko di wax ne sama wóolare lu tax mu nek sama wóolare Cheikh jaw dañu bokk dekk sa Kër Massar muy ku bax ñi bokk di yëngu ci walu daara euh, gannaaw yalla moma indi fi aussi euh, di wax ne Abdou lepp luñ ci sédé rek euh, doyut ndax dafa nek ndaw lo xamne li ñun ñoko mak ndaw lo lo xamne li dafa. dafa dafa dafa tënku ci diine yaa ngi dégg am yitte ci diine am ay yaatu yaatal ñëpp teral ñëpp yal na yàlla fal ko cat yàlla yàlla sàmm ko te it fu mu bëgg ak it yal na yàlla àggal ko fa lii mu simbu nii di loo xam ne lii lu am solo te kenn ku nekk war nga am yitte ba def lii ndax loo xam ne defuloo ko kenn lu du yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla na yàlla jàppale ko ci ba at mu jot muy gën di yokk yal yàlla defal ko maa ngi ñaanal ay ay magam di ñaanal wajuuram yàlla yàlla guddal fanam di ñaanal ay mbokkam yëpp yàlla yàlla may lafal leen cat sàmm leen tey bésim bi yàlla na yàlla àggal ko ci alhamdulilah rabbil alamin kon asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. dama bëggoon nag nga ñaanal suñ télé bi RTV nga ñaanal ko mu jëm ci kanam référence. Euh, maa ngi ñaanal seen tele bi aussi yàlla na yàlla def ko mu bokk ci télé yi gën a mag yéen gën a ràññee. Euh, euh, lépp lu ngeen ci bëgg yal na ko yàlla def ci barke Yonent bi sallallahu alayhi yàlla yal na yàlla leen defal ndam dafa ko mboolem julit lépp lu ngeen ci bëgg rek yal yàlla yombal leen ko yal na yàlla lafal leen cat yal yàlla lafal leen seytaane ba lépp lu ngeen ci sémb rek yal na yàlla def ko yal na yàlla boole ko ci tele yi mag yi allahumma salli ala sayyidina wa sallam may wax Amir xam nga ñaan moom du doy. salaamaaleykum ni ma leen ko ni ma leen ko doon waxee rek pareeguñu ba tey. tey na dafa am beneen kilifa goo xamante ne dafa ñëw te mu ko war a dalal ñu naan ko Cheikh Jojo mu ngi nii toog sëñ baa ngi nii toog ma bëggoon a waxtaan ak moom tamit laaj ko lan la xam ci bis bi ndax bis bi bis bi ndawul bis bi dafa rëy ndax ñëpp a ngi fi may wax nag Sénégal ñëpp a fi daje macha allah ñëpp a ngi nuy toog waaw ma doon laaj sëñ bi lan la xam ci bis bi moom tamit sëñ bi asalaamaaleykum. wa rahmatullah ñu ngi nuyu mbokk jullit ñëpp di nuyu mbooleem fu jullit nekk di wax alhamdulilahi rabil alamin waaw sant yàlla bu baax bis bii moom kontaan rek ak cant rek lañ ci am parce que sëñ Abdou moom macha allah mérito na bis bii parce que liggéey na ko waaw nekkoon dañ koy moor man ak moom ñu daan bokk benn néeg bu ñu daan fanaan xam naa si moom lu mu gàtt gàtt xam naa si moom lu baree bari si jikko yi rafet waaw magam mi nga xam ne mooy Ibrahima Diaw moom ñoo bokk ndey ak baay maire bi mooy mooy seen yaay mooy soxna si toog moom jàngal nañu man maam moom bëri na tiir ñu si magam jooju waaye ñu nekkoon kay moor foofu nag yaroo fa Euh, li nga xam ne mooy jikko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaro yaroon nañ ci moom te ki ñuy yar tamit kilifa goo Cheikh Mouhamad Lamine na moom waaw am na lu way juróom def si moom nit ku ne xam na ne moom xalaa kulli xaalin way jur moo ëpp doole si moom waaye gannaaw loolu it sëriñ boobu lu mu si ñun lu alquran wax jikko ju rafet jikko jooju moom lañ taggee yonent bi te jikko jooju itam def nañ ko si moom te gis nañ ko si moom parce que ku ñu fi jaar ñëpp seere nañ jikko ju rafet jooju te itam ku baax la jànkata alquran la kay mor gañ nekkoon fee mom mo ran taxawé nafil alquran bi ci weeru koor yi moy nafil kan bi yépp mom moo koy naafale mu rafet te sell jang mom na alquran bi mu ngi ko jangé bu nga xamné moy tay ba mbayen fa la jàngee alquran ba mokkal ko mais bi ñëwé kay mor bari na ci mbir yu bari man ak mom duggu nañ ci wa su ko défé lolu xamna ko ci mom comme bis bi lu mérito la parce que alqu bëgg alquran la ku alquran la te alquran mom ku koy jëfëndiko yalla mo lay fay mo ta yalla mo ko bis bi xeewee nako ko ñing koy ñaanal yalla bis bi yàlla na sax daay man ci barki yonent yàlla Muhammad te xam nañ yaakaar na day sax parce que liggéey na ko parce que yàlla lépp lu mu am rek mu ko def si alquran te abdu sëñ abdu dara du liggéeyam lu dara du liggéeyam lu diina dara du liggéeyam lu bëgg jullit ñi ñëpp loolu moom xam nañ si moom bu wér a wér bokk naa moom néeg ay guddi guddi guddi guddi lu ma xam ci moom mooy mbaax ak njub ak sell ak bëgg jaam yàlla yi bëgg alquran bëgg jikko yonent topp jikko ji nga xam ne mooy jikko yonent yàlla moom sallallahu alayhi si la taxaw kon bis bi yeeyoo na ko bis si gën a mag yi sax dana ko am kon yéen télé bi nga xam ne yéen a ñëw fi ñu ngi leen di ñaanal yal ngeen gën a kawe mboolem télé yëpp ci barke yonent yàlla Muhammad uma salika ala basis alhamdulilah barakallah incha allah jërëjëf euh, si sëñ bi ñu ngi lay ziar di la delloo njëkk di la ñaanal yàlla ndax nag ñaan du doy te gis nga ñi dañoo jege yàlla kon moo tax saa su ma waxee ba pare dama leen di dékk samay loxo maak sama cameraman bu ñaawul bii di Pape Ndour leen wax ñu ñaanal waa référence di ñaanal waa RTV di ñaanal ñëpp di ñaanal suñu série bi yàlla def ci jàmm ak salaam muy waaso kon yàlla yàlla def jàmm may wax ñëpp di dox dox jox ñëpp dig daje ci suuf incha allah ci kanam ci baas bi duma bàyyi kenn bépp kilifa bu fi ñëw tey rek bu soobee yàlla dinaa wax ak yow ñaanal lan teg yow feddal ni ko teg yow suñu këllëre ci yoon macha allah kon laf cat kon ba ci kanam. yéen waa Sénégal waa 7TV yéen ñiy déglu ñëpp di ñu seetaan ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax di leen ndokkeel di leen baalu di sant yàlla bu baax ci lii mu ñu defal mooy am xew-xew ci sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam évité ci mbokk jullit yëpp évité yi suñuy dëkkandoor ak suñuy mbokk waaye nag rawatina suñuy sëriñ di suñuy mbokki taalibe ñu ñëw teewal ñu ci bis bu rëy boo xam ne lu rëy la ci ñun ñu ciy sant yàlla bu baax a baax nga xam ne tey suñ mënee wax ba nit ñi di ñu déglu ginnaaw yàlla ñoom la suñ mënee def ba ñëpp di ñu ñëwal ginnaaw yàlla ñoom la kon ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ah bis bi nag mu nekk bis boo xam ne euh, suñu xarit suñu mbokk suñu mbokk taalibe moo koy def di suñu mbokk bu sës di suñu deret Abdou Aziz Diaw ñu koy ziar bu baax ñi sant yàlla bu baax nag ndax suñuy sëriñ dañoo ñëwal mu nekk lu rëy ci ñun moo xamante ni tey fu rek tudd leen ñun dafa am cër bu ñuy jox ndax ñoom kon ñu ngi ciy sant yàlla bu baax a baax ndax ñoom ah, kooku nag ñu ngi ciy jiital suñuy sëriñ Mouhamadul Bachir al di doom ci suñ daara Cheikh Mouhamadul Ghali Mbaye nga xam ne tey mooy xalifa fii ci kaw suuf mu ñëwal ñu tey ci bés bi ñu ciy sant yàlla bu baax a baax mu nekk jëf joo xam ne mbeteel la ci ñun ndax dafa rëy ba nga xamante ni sax fooguñ ko woon kon tey mu mel ni suñ daara Cheikh Modou tey moom moo ñëw tey ci teew ci bés bi moo tax dañoo bég sax ba mënuñoo wax Ah, mbégte mi rek day yokk ba nga xamante ni euh, suñu mag suñu xarit suñu sëriñ di suñu imaam Mouhamadul Amin Sakho nga xam ne tey Sénégal yëpp ak Gambie wala Afrique yëpp wala àdduna yëpp jox nañ ko cër ndax tey li mu doon ak ki mu doon ak fi mu jaar ak fi mu li mu xam nga xam ne tey seen àddina yëpp laa wax dégg nañ ko tey ci mbooleem saay su waxee ñu nawloo ko saay su waxee ñu gëm ko ci xam-xam baak ci fasaaba ba tax na tey ñun bu toogee di wax sax ñu xool ko ne kii xam nañ ko ñun dafa am cër bu ñuy jox ndax moom kon sant yàlla loolu bu baax a baax a baax tey ñun moom lañ am mbégte mi ñu am daal tey rëy na ci ñu rëy boo xam ne dëgg-dëgg euh, yàlla nag làmmiñ lott na ci sax toog di ko wax waaye dañ koy fas ci suñu xol rek di ko ñaanal yàlla ñu ngi koy sant bu baax di ko ziyaare nag moo toog nii suñu wet moom imaam Mouhamadul Amin Sakho ñu xam ko ca Géejawaay ak ca Sénégal nga xam ne ku mel ni Cheikh Mouhamadoul Mansour ku mu jël ba doyloo ko jox ko cër teg ko ci teg ko ci kanam kon kooku du nit ku ndaw kooku tim du nit ku cuune kon nga xam ne Sénégal di gàmbi di Afrique foo ko tudd tey xam nañ ko macha allah moom it moo teew ci bés bi mu nekk lu rëy ñu lu màgg loo xam ne ñu ciy sant yàlla bu baax a baax di leen ci gërëm waaye nag ñu ngi sant yàlla di leen ñaanal yàlla ñu ngi ñaan ñu ngi ñaan yàlla bu baax fu mu toll ñu ngi leen di ñaanal di ñaan ñu ñaanal ñu ñu yàgg suñu kanam yàlla dëgëral leen may leen kàttan ak suutara bi jaay na men Moustapha kon daal dëgg-dëgg yàlla kontaan nañ sëñ bi lii moo nekkoon bés bi nag ñuy ñaan nag ndax bés bi rëy na ci ñun ba nga xam ne su ñu ñëwee di dinañ il faut ñu ubbil ñu ñag ñu dégg kàddu yu ñu daan dégg ci ñoom su ko defee ñu booleente ñaax ñu dooleel ñu dolli ñu daal di ñuy ñaanal incha allah ñu daal di continuer ci yëf yi kon imaam Mouhamadul imaam Mouhamadul Amin Sakho ñu ngi lay ziar bu baax a baax di la wax kàddu gaa ngi nii asalaamaaleykum wa rahmatullah <coughs> in alhamdulillah نحمده سبحانه وتعالى على ما أسبغ علينا من النعم وبسط لنا من الجود والكرم وأسلي وأسلم على الوسيلة الأعظم والحبيب الأكرم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ذوي المزايا والحرم bokk jullit yu tedd yu ñuy seetaan ci réew mi ak ci bitim réew ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara ci barab bu tedd bii di yëkkati kàdduy sunu sëriñ sunu wasila sunu xarit Cheikh Mamadou Bachir Mbaye ibnu almarhum wal maxfuri lahu cheikh Mamadou Ghali Mbaye kàddu yi ñu yëkkati ñu ngi ko jëmee nag ci suñu rakk suñu xarit suñu mbokk daara muy cheikh Abdoul Aziz Diaw ibnu cheikh Ahmad Tidiane Diaw Baye Ahmad Tidiane Diaw ku ne xam na ko sunu sëriñ cheikh Mamadou Ghali Mbaye ci ànd bu rafet ci jëflante mu yëkkati njabootam yëpp min awalihim ila axirihim ku mu njaboote rek yebal na la nga dem ca Taïba Mbayeen ci ron góor gu baax googu pour mu orienter la jubbanti la euh, sëriñ bi wax na bi ñuy ñëw ne eh, Cheikh maam Cheikh Modou Ghali Mbaye mi nga xam ne mooy sëriñu sëriñ bi woote jaar na ci nekk na ci daaram sax laay wax duma jox jaar na ci moom njabootam nee na njabootu Cheikh Ahmad Tidiane Diaw amu ci woon taalibi ay doom kese la ci amoon kàddu yooyu nag moo ñu ak tànk yooyu ak ndigal yu rëy yooyu moo ñu yëkkati ñu ñëw nag fekkeele suñu rek suñu Abdul Aziz ci guddi gu rëy goo xam ne tant luñ ko kenn kenn ku dul Seydina Muhammad ibni Abdillah bi nga xam ne yu lahu jëmul day da fa fadaili daydanun fawadiluhu tasidahu yusra wamiya kooku nag suñ ko tàntalee wooñu ci dañ ci kontaan waaye daañu ndokkeel nag bu baax rakk ji nga xam ne moo ñu woo ci yiwu rëy wi ndax woote yi bari na te tant bi li muy rafet rafet lu muy xumb xumb li muy fees fees am na ko ko fi romb dem ci yeneen yoo xam ne neexul yàlla te ay duma rek la cay jëlee kon bu nekkee ndaw waaye jubluwaayam di yàlla mu wooñu ci bés bu rëy bi woo sëriñam bi woo xaritam yi ci ñu fekkee ko Seydina Muhammad kon daañu ñëw ndokkeel ko ci mu defee ko nag ci digg ndakaar ku ne xam na ne Yoof mooy cosaanu Ndakaaru àddina bi yëpp bàppeeku bàyyi ko ci gox fasanti ko ndax bi ñuy agsi rek fekk nañ fi waa daaraam te dañuy wax ne nit fu mu jàngee bu xewlee gisuñ fa waa daaraam jërewu fa ngërëm waaye loo xewle gis fa doon jàngee ñëw doomi sëriñ ba taalibe sëriñ ba kon yow fa nga doon jàngee jëlee nga fa ngërëm ngërëm loolu nag yal nañu ko yàlla sàmmal bu baax téel ñu ko lii mu woote it nag wootewu ko kudut yàlla wootewu ko kudut yonent bi sallallahu alayhi ak mag ñu baax ñi nga xam ne ñoo teete yii ba lii agsi fii kon ñu ngi ndokkeel Sénégal yëpp ñu ngi ndokkeel àddina bi yëpp waaye ñu ngi ndokkeel guddi gi yëpp di nuyu ñëpp di wax ne Cheikh Bachir mënuñu woon a ñàkk yëkkati kàddu ci sa tur kontante ak mbégte moo fi indi ndax léeg nga am njaboot nga toog ci télé seetaan ko mu nekk ci la neexu te doo ci mën dara léeg sëriñ bi nga am njaboot nga dégg ko muy yëngatu ci loo xam waxuma sax dem waaye rus nga koo dégg yàlla may la njaboot goo xam ne bi nga àggee sañ ngaa yëkkati kàddu ci lam nekk lu ñuy suñu borom la wa taala kon suñu kàddu yi suñu tànk suñu ñëw gi ak sëriñ bi du dara lu du sëriñ Moussa ah, Abdoul ñu ngi lay ndokkeel bu baax yaag say xarit ci wooteel gi nga wooteel yonent bi ak ñi lay jàppale ci liggéey bi bii mag mooy première édition comme ni ñu ko waxee waaye gëm nañ ne dina fi raw dina dem ba dootu xaj ci ruq ndax ya yàlla amul tànki gannaaw te boo koy wooteel moom mooy woowal boppam nit ña mooy woowal boppam ña cay def soo leboon def ci yàlla dana yëkkati lu ko ëpp delloo ko ca kon ñu ngi kontaan baax kàddu yi rek lañ doon ubbile sëriñ bi sëñ Mouhamadul Bachir ñu delloo ko kàddu gi wax ne kontaan nañ dégg nañ sant nag organes yi nga xam lépp loo xam ne islam àgg na fa ci défendre leen ci yëkkati seen tur ci siiwa leen ñu ngi ci ñaar yooyu nag muy lu am solo yal na leen yàlla dëgëralal ba fa ngeen bëgg a àgg ko xam yal leen ko yàlla defal loolu daal moo doon suñuy kàddu waaw kay xam wax dëgg wax na ndax su fekkee ne sëñ Abdul Aziz dafa ñëw fii ci yoof dëkk fi dëkkin wu rafet ba ay dëkkandooram doyloo ko may ko espace bu mu tante ñu ubbil ko seeni kër ay gënam dugg ca war nañoo wax kat ki nga xam ne moo ko yar fan la jaar ak moom ak fan la jógee muy Cheikh Mamadou Ghali Mbaye ñun li ñu fi indi ci gàttal rek ci lay wax waaw ah, muy eh, kàddu kóllëre ak démb moo ñu fi indi tey waaw eh, imaam daanaka wax na lépp xam bu ñu fi ñëwee sax du ñu yëg ne am na lu fi xew waaye fan yi laa ko yónnee benn vocal ndax dama dama déglu seetaan image bi ci ngeen dugal ko ci suñ groupe bi Eh, tombe may waaj gàmmu sëñ aadi ma ne waaye du ma wax dara naa bàyyi ba egg comme doomu aadama man bëgguma di wax muy récité maa bëgg lépp lu may wax rek muy doon loo xam ne nii lu may def lay doon moo taxoon waxuma ko dara barki démb yaakaar naa laa ko yónnee benn vocal na ko ñu ngi ndakaaru nag waaye ñu ngi ñaan bu fekkee sam di fekke nañu fi am benn gàllankoor dana jéem a ñëw ci programme boobu ngay oote ndax yonent bi rek ngay ooteel te yonent bi nag képp ko koy ooteel kenn gënuñu cee ñun waaw loolu daal mu ñu fi indi ci gàttal ak it ak yaru sëñ Abdou ak am fu mu ñu teg am nañ foo xam ne bu ñu fa tegoon euh, mën naa xam duñ mën a ñëw ndax bu ñu fi ñëwee duñ xam lu ñuy wax waaye bi biñ ñëwee ñi fi fekk gën nañoo neex. lu ñu def ci kër gi wala ci dëkk ba bu taxawee mën nañoo présenté ci wàllu wàllu gune ak fànn gune nag kon bu fi àndee ak Omar Thiam ak Modou Mansour mii ñoom ñett rek mënoon nañoo présenté waaye ñun loolu doyuñu xam nga lan moo ñu doy nit ki bu la yëgee da nga koy yëg sëñ Mansour waa ji nee na noonu na boo gisee mu mu ne xamu xaw ma nit kii nu ma koy def ni mu ko def moo tax ni ngeen ñu def moo tax xamuñ nu leen di def wax dëgg yàlla yow Imam Sakho témoin nga ci gàmmu tey mbayaan gannaaw yàlla ak yonante bi buy si fii xale yii ñoom Omar Diaw ñi ñoo tax waaw di participer di ñëw di joxe di ñukki ñukki am na ñoo am na ñoo xam ne ñu ngi ci dëkk ba ñoom li ñu def ci dëkk ba sax ñoom defuñ ci genn wàll ga kon ñooñu buñ xewlee ñun amatuñ ngant suñ ngànt du ko xam suñ jot du ko xam suñ wér-gi-yaram du ko xam kon dañu def dañuy def loolu du walanteeru ñëw ci ñu ngi leen sant bu baax nag Ah, sëñ Abdou ah, yàlla da koo dimbale ci fànn yu bëree bëree bëree bari waaw ndax yàlla dimbale na ko mu doon ndaw bi mu doxee ndaw it am na fu mu jëm li bon mooy di dem te xamoo fi nga jëm mais yàlla boole na ko ay nit ñu baax boole ko ay sëriñ yu baax boole koog ay wëllëre yu baax yàlla na yàlla dimbale leen yàlla na yàlla jàppale leen yàlla na yàlla jàmmal leen yàlla suturaal leen defal leen xol bu sedd ak yaram wu sedd lees war a wax yëpp mënee su ko wax ndax dañoo bég dañoo kontaan bi ñëwee fekk fi jëmm yu ref yu yu baax yi jëmm yu taaru yi borom xol yu rafet yii man nit xol rek laa koy jàppee te yéen seen xol yi dara newu ci kon nag ñu leen di sant bu baax di leen gërëm di leen ñaanal yàlla di ñaan ci yàlla bés bi yàlla yàlla na baamu ay xati xati xat ñun ñëpp ñu fekkee ànd ak tal ak yokkute ci saayir ak ci baatin ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci barke Seexu Tijaan ci gàttal lool sax wax dëgg yàlla suñu xol dafa fees te dañoo kontaan ah, imaam miin mënuñ ko ñàkk sant mënuñ ko ñàkk gërëm bu ñu ñëw ndakaaru di fi def semaine yàlla ak moom la ñun moom rek lañ xajoo loolu la yàlla dogal wallaay la xasim bu ñëwee Dakar fii xàgguñ këram firihuñ du tay nag démb la fii fu ne mën nañ ko fi fan fu ne mën nañ fee dal ci Dakar fu ne xam na ñoo xam ne bu ñu demoon ñoom duñ bëgg ñu jógee ko fa waaye doomu aadama moo bindoo kem xas xam miin ko moom la moom dong lay mën a taqoon moom lay mën a dëkkat waaye wallaay la xasim fii tumuraanke wuñ fi ñàkkuñ fi fuñ fi dal te kuñ fi da demoon it li mu mën ngaa def loolu sax li imaam di def waaye moom yàlla daf ñoo booloon ba ñuy ndaw boole ñu ba ñuy mu boole xaat ñu bañ doon ba yàlla defee ñu nekk ay kilif kon loolu tuuti wut mosu ñoo werante ak moom mosu ñoo juyoo ak moom mosu ñoo bokk ñàkk a moom xelaat loolu la yàlla dogal li nag mooy ak bokk maakaana lillaahi daama wa tasal maakaana li xeer laa in xataa woon fasal Cheikh Ahmadou Bamba nee na wa kullu suhubatin lillaahi aqiroo alhamdulilahi waaye wa kullu suhubatin li xeeri laahi aqiroo inna lillaahi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñuy dellu ci masalul arab yi rek li arab yi daan lépp ne laa yarchaul inaaw ila ma xawat ndab moom la ci biir rekk lay senn xam nga mënoo def ci pot bi ndox nga bënn ko mu toq meew waaw moo tax yaruwaay am solo suñuy doom nañu seet loxo yu sell ñu teg leen ci ngir lii mooy tax suñu sëriñ Cheikh Hadj Malick la anu buñ naan diw am na xam-xam du laaj fu mu jàngee daf naan ko ko yar suñ ne diw a ko yar mu ne kooku de mën naa jub mën naa jubal kon tey lépp bu delluwaatee ci garab gu rëy gële sax ca Saalum te du sempeeku mukk nga xam ne kum yar mu baax daf daan wax ni soo jàngee tuuti moom Cheikh Mamadou Ghali Mbaye yàlla teral la soo jàngee lu bëri yàlla fal la boo jëfandikoo dem jana kon dara bettuñu ñun ci lii wasalaamaaleykum wa rahmatullah waa tool moom nuñ ko gën a bayee rek mu gën a set waa tool moom noo gën a bayee rek mu gën a set boo gisee bay bayaat loolu la boo jaaree ci sëriñ bi mu def ci yow nga jaar ci keneen mu def ci yow nga daal ci keneen mu def ci yow bu yëpp dajee rek mu daal di set moom lay olof di wax rek ku ñëpp taf li nga tooy waaw foofu moom mën naa ci bën a sori parce que tënk la bu jege ku jege sëñ daal Cheikh Modou Ghali mu nekk Cheikhul Murabbi nga dem Cheikh Ahmed Dim ndjay mu nek cheikhul murabbi gannaaw ga nga yar sa bop fo dem mën faa dëkk waaw loolu lañ ci wax jere jërëjëf. maaleykum ma ngi wat nuy wat ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp kon nima ko waxee won ci ngon rek tay nak dañu fas dalal seigne Assane sar mo ngi nuy tok mom tamit ci gan yi la ma sha allah ma fas ko talal sama micro rek laaj ko lan la xam ci guddigi gi waaw sama ndjay ma ngi lay ziar di la nuyu di la dolo ndukal wa alaykum assalam wa rahmatullah soxna si ñu ngi leen di fay nuyoo. waa tey nag ah, woote gu rëy moo ñu fi boole ñun ñëpp indi ñu fi ñun ñëpp muy gàmb gi nga xamante ne moom la ñuy def fii tey ma gis la nga ñëw ci gàmb gi ma xam ne gàmm gi nag moom ah doo ku ndaw ku mag nga ci. looloo tax ma gis la rek jóg daal di jël sama micro daal ne naa la ko tàllal laaj la loo xam ci guddi gi ak ki waral guddi gi loo xam ci moom. aleykum salaam wa rahmatullah soxna si ñu ngi bëgg lool si jotaay bi di kontaan lool li ma laaj it dinaa sawar lool ci tontu ko ndax li waral jotaay bi jotaay la boo xam ne gudde gint yàlla mohammad salallahu alayhi wa sallam la suñ mbokk taalibe abdou aziz diaw woote ko fii ci dakar ñun ñu ngi bàyyi ko ba mbuur eh, ñu ngi toog ak suñ sëriñ eh, cheikh abdoulahi ndiaye di taawu suñ sëriñ Maulana Cheikh Mouhamadul Amin Jim Ndiaye mi nga xam ne euh, guddi gi su amee moom moo ko waral guddi gi guddeeg suñ sëriñ Maulana Cheikh Mouhamadul Amin Jim Ndiaye la di ki nga xam ne euh, kenn la ci jamono ndax euh, doom aadama su fekkente ne dafa nekk ci kaw suuf di dund du mën a ñàkk mu am kilifa boo xam ne moom moo koy yar yar nafsom bi yar bakkanam bi yar jëmmam ji yar ruuxoom bi ba yeew lépp ci péeb yàlla bi ñun nag yàlla dimbali ñu dajale ñoo koo xam ne sooy wër sëriñ dëgg dëgg dëgg na bàyyi waxe woon ne noonu la ñuy wëree sëriñ ñun bañ xoolee ci jëmm jooju la daje ndax Baye ñas dafa wax ne na nga wut sëriñ nanga ko sàkku na nga sàkku seexul mu rabbi mu ne waaye xabiran mu ne na nekk koo xam ne ko xam la mu ne naasiyaan mu ne na laabir mu ne kaamila xirfaan mu ne na nekk koo xam ne ku mat la ci xam yàlla mu ne sëriñ dafay xam yàlla mu ne waaye su xamee yàlla mu ne na laabir mu ne su laabiree mu ne na nekk koo xam ne ku mat la ci xam gim xam yàlla mu ne waaye gannaaw gum matee ci xam yàlla mu ne na na na sell mu ne waaye na mat njiit kon sëriñ ñu bëri ñu ngi jóg di wut sëriñ waaye suñu xoolee loolu ci seen sëriñ amaana rek danañ ko dagg dem seeti beneen sëriñ ndax sëriñ boo xam ne ku xam yàlla la ndax xam yàlla lu jafe la waaye gannaaw ba mu xamee yàlla mu ne na nekk koo xam ne nag ku laabir la maanaam lam xam moom sëriñ bi ba tax mu toog ci sées ba nekk sëriñ mu ne na la ko xamal ndax su la ko xamalee rek kon su boobaa yow da nekk sëriñ comme moom ndax sëriñ bi lim xam daf la ko war a xamal mu ne ginnaaw bu nangoo xamal la lim xam ba pare moom sëriñ bi mu ne na nekk nag ku mat ci xam gi lu jafe nag ci jamono bii kon na bàyyi wax ne noonu la ñuy wutee sëriñ ñu bëri war nañ dem examen seen sëriñ xool ndax danañ fekk lool ci moom wala déet waaye ñun alhamdulilahi rabil alamina ñun ki ñu yàlla booleel soo ko xoolee mooy jëm yonte yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax lépp lu ñuy jàngale ci yonte yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam soo ko xoolee da nga ko fekk ci moom moom Maulana Cheikh Mouhamadul Amin Jim Ndiaye lépp nag lu ñuy jàngale ci yonte yàlla muhammad rek soo demee fekk ci moom ca sell ga ci njub ga ca ragal yàlla ga ca xam ga xam nga mat ca xam nga it ca laabir ba ba ay noonam sax mu di leen dimbale moom suñ sëriñ Maulana Cheikh Mouhamad Lamine Jim Ndiaye ña xam ne ñoom dañ koy xeex ba ñun taalibe yi ñu teg si bët sax xam ne ñii kat ñii eh, amaana bugguñ suñ sëriñ ndax eh, eh, yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam sax ba tey la gën a ëppi noonu moom yonent yàlla Muhammad kon ku baax rek foo nga bëri noonu waaye nag ñun dañ gis ne ñun suñ sëriñ Maulana Cheikh Mouhamad Lamine Jim Ndiaye noona yi sax lay gën a dimbale ka soppeem yi kooku mooy sëriñ jim boo ko xañee mu jox la moom sëriñ jim boo ko xañee mu jox la moom sëriñ jim moom sëriñ jim boo ko daggee mu jokku la moom sëriñ jim mboolem jikko bu rafet bu ñu jàngale ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam rek soo ko xoolee si sëriñ jim da ko fa fekk mboolem mbaax gu ñu jàngale si sëriñ jim sëriñ jim tey suñ ko dul wàññi ci milliardaire u Sénégal yi li waral loolu mbaaxam moom moo tax ndax sëriñ jim amul lenn lu muy dencal suba lépp lu ko yàlla jox tey mu séddale ko jaamu yàlla yi moom toog ñun loolu ñun ñoo ko mën a seede ci moom loolu bokk na ci ay jikkoom kon ñun yàlla dimbale nañu boole nañu jëmm joo xam ne euh, buñ ko toppee rek danañ jub suñ ko toppee danañ am yàlla jëmm jooju nag tey jii kii moo ko fi présenté muy doomam di taawam muy Cheikh Abdoulaye Ndiaye ay rakkam ñu ngi fi waaye nag moom bu toogee rakkam yi dañ jël cër bi yëpp jox ko ko moom ñun ñu tey jëmm ji toog nii mooy sëriñ jim si ñun jëmm ji toog nii tey jii mooy sëriñ jim ci ñun ndax moom it wax dëgg yàlla lépp lu ñuy gis ci sëriñ jim rek suñ xoolee rek fekk ko ci moom waaw kon alhamdulilahi rabil alamina Cheikh Abdoulaye Ndiaye ñu ngi lay siyaare ñu ngi lay wax bismillah di la dalal jàmm ah, di la wax ne ah ñun taalibe yi de ñun kontaan nañ ci yow bu baax a baax a baax ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla may ko gudd fan may ko ay rakkam yàlla aar leen sàmm leen suturaal leen ndax ñoom euh, dañ dañ baax baaxeel boo xam ne ñun suñu gisee sax dañuy jox cër yoo xam ne sax ñun yelloowuñ ko waaye loolu seen mbaax la rek gis nga nit ku baax suy jëflanteeg yow ci mbaaxam lay jëflanteeg yow moo tax sëriñ jim léegoo léeg nit dina xeebu lool dem fa sëriñ jim jëflanteeg moom jëflante bu kawe ba moom mu yaakaar ne daa kawe déedéet yow kawe woo de moom sëriñ jim ci kaweem ci la jëflanteeg yow nga yaakaar ne sax yaa kawe fekk kaweewuloo al kon alhamdulilahi rabil alamin si euh, Abdoulaye Ndiaye ñu ngi leen di siyaare bu baax Ndiaye ñu ngi leen di ñaanal ñaan bu baax baax. waa merci beaucoup sama nijaay wax ji rafet na macha allah sell na leer na yiw na. léegi nag bu ñu fa jógee nag ñu ngi dem nag ci ki nga xamante ne mooy suñ sëriñ ñun ñëpp dégg naa nag ñoom ñu bëgg koo féetewoo danaa suñu sëriñ suñ sëriñ waaye man du ko nangu dama naa suñ sëriñ ñun ñëpp ndax li ngeen bëgg rek laa bëgg li bëtt bi bëgg rek la bar bi bëgg macha allah ma fas yéene ko nag tàllal sama micro waaw mu wax lu mu xam ci taalibeem bi waaw salaamaaleykum suñ sëriñ naa def danga xale yi waaw sa taalibe bi nag tey dangaa ñëw rek mu ne jóg ñu daal di jóg ñëw mu ne nañ ñëw laaj la loo xam ci bis bi waaye leen dalaa lay xamal yaa ngi doog a excédé waaye ñun ñi nga xamante ne ñun ñooy gan yi bi ñu ñëwee suba ba léegi macha allah mu ngi ñuy berndeel teg ñu fi ñu war a teg jox ñu suñu cër jox ñu suñu gëdd looloo ñu fi bàyyi ba heure bi ndax ñun am nañ fu la goo xamante ne nii suñ la seesee nga am noo ñu téye rek suñ jëlee tuuti rek dañuy daal dem suñu kër waaye ba ñëwee macha allah moom fi mu nii bu doon tëgg fii ba suba ci ngoon bu war na ti bi dañ fiy toog nekk ak moom ba keroog muy tas ñu doog a ñibbi ndax si moom nag lañ ko gisee ma lay seedal nag am nga taalibe bu baax am nga taalibe bu yiw taalibe bu jullite macha allah ma lay wax nag loo xam ci moom ak loo xam ci bisam bi. maaleykum salaam wa rahmatullah ñu ngi lay fay nuyoo di leen ziar yi ñëpp leen ndokkeel bu baax ci bis bi ndax bis boo xam ne dañ ko woote ngir jëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaakaar naa bàyyi ko ba siin di dox ci ay xalu safara jaroon na pour teew ci bis bi. ndax dara waraloon ko lumay jëm jëmee bi sallallahu alayhi wasallam bis bo xamne bo ci téwé dañ ci jëlé yàlla bëgg la yaakaar naa téwé ko loolu moom fartera ci ñun ñëpp yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ci ben xadisam boo xamante ne obayatut min sabin moo netti nettali mune haqqat mahabbati lil mutahabbin fiyya wal mutazawirin fiyya wal mutajalisin fiyya wal mutabasilina fiya wal mutasaddiqina fiya wal mutajalisina fiya mu ne sama mbëggeel war nañu bëggante ngir man sama mbëggeel war na ñi ziyaarawante ngir man sama mbëggeel war na ñi nga xamante ni dañuy saraxe ngir man waaye sama mbëggeel war na ñi nga xamante ni dañuy toogaale ngir man te yaakaar naa jotaay bi tey dara waralul ko rek lu muy jëmi yonent bi sallallahu alayhi wa bi sallallahu alayhi wa sallam rek moo ko waral may faral di wax ne kuréel ñaari xaaj la am na kuréel boo xamante ni boo ko xoolee sa xel li muy njëkk daj mooy yàlla ñooñu mooy xisbullahi ñooñu ala fookare dañuy taxé ala inna xisballahi humul muflihun am na kuréel boo xam ne boo sa xel limi ñëk daj daj mooy moy hizbu xisbu ñoo ñu mom dañuy perte ala inna xisba seytaani humul qasirun ñu ngi sant yàlla bu baax bañu yàlla boolee ci xisbullahi xamne ne wuñ kenn ku may jëm yoonu bi sallallahu alayhi wasallam suñu sëriñ Cheikh Mahamadoul amin jimjay ci lool lañuy yar ci bëgg yoonu bi sallallahu alayhi wasallam lañuy yar ci lool la ñu màgg rek la xam te nit moom lim namp rek la mëna gal euh bo gisé mu taxawal li daf ko nampé ci sëriñam ma euh, njëriñu talibé mom amna ko lén moy njëriñu talibé waxun muridin in qiyad li kamilin له خبرة بالعلم والوقت والحال والكنز والإكسير والكيمياء لمن أراد وصولا أو بغى إلى أمالي نير نيو طالب لين رجلا موي مو أم سرين بومات تا يالا ماي نكو سرين بومات سك سرين بو خمانتني ليبم القرآن bu ñu waxee sëriñ bu mën nag jafe na ci jamono jii ndax bëri na ñuy wootewoo sëriñ waaye sëriñ ak këriñ dañoo xawanduroo te bokkuñ sëriñ ak këriñ dañoo xawanduroo te bokkuñ yàlla may na ko sëriñ boo xamante ni mboolem qualité sëriñ yëpp dafa nekk ci moom moom yàlla may na ko loolu dafa am benn boroom xam-xam bu ñuy wax ibnu ataa illahi sakandari mu ne man dallaka ala dunia bépp sëriñ boo ñëw mu lay teg tel ci àdduna faqat xachaka mu ne sëriñ boobu nax na la waaye bépp sëriñ boo ñëw mu lay tegtal ci jëf ju bari di la sonnal mu ne kooku woor na la man dallaka alal amali faqat ataabak waaye bépp sëriñ boo ñëw mu lay tegtal ci yàlla naan la jubal ragalal yàlla wóolul yàlla saxar ci njub saxar ci lislaam lii mooy sama yoon li may yor yontu bi sallallahu alayhi wa sallam boo si jaaree di ngay egg fañ yegg kooku mooy sëriñ bu mat sëriñ mooy wa man dallaka ala allahi faqad nasaxaka moo tax dañuy xam ne ci yoonam rek la jaar wala ñu ngi ko ci ndokkeel bu baax di la wax salaamaaleykum wa rahmatullah macha allah wax ji <laughs> macha allah wax ji rafet na leer na comme ni ma ko waxee woon rek waa lépp nag ci RTV rek lay xewee si YouTube bi la nekk da ngay def RTV référence boo defee référence nga def waaso rek boo su duggee incha allah di nga ñu daal di gis.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 ñoo ngi nuyu ñëpp waa RTV ñu ngi leen di nuyu di nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di sant ñëpp di kontaan ci daje bi ndax comme ni ko nit ñi di waxee daje bi daje yàlla kese la boo gisee nit ñi ni ñu toogee rek ak fii ni mu mel rek ak kilifa gu màgg gii nga xamante ne nii moo ñëw ci bis bi rek nga xam ne bis bi bisu yàlla kese la may wax ne nag olof njaay nag nee na lu yëngu nag lu ko yëngale ko ëpp doole te buñ nee coolu coolu rek am na lu ko waral tey nag sëñ baa ngi nii toog mun naa ne sax moo waral coow li ndax lépp moom la ndax ba mu ñëwee rek dañoo ñëw fekk ma ci suuf ne ma soxna Ndumbe jógal nga dem waxtaan ak sëñ bi nga laaj ko loo xam ci bis bi xam naa ne nag bis bi moom war na cee kontaan ndax moom yàlla dogal na ci lu jëm ci yonent bi rek lay dox suba ba ngoon jot fii nag bi ñu fi ñëwee ba léegi macha allah amuñu dara lu naqari wax dëgg yàlla ñu ngi ci jàmm ñu teg ñu ci condition yu baax sëñ ma lay wax na nag sa taale bi moom macha allah ma lay wax nag lan nga xam ci bis bi ak lan nga xam ci moom ak lan nga koy ñaanal ak ngay ñaanal mbooloo mi ak taalibe yi ak Sénégal ak télé bi nga xamante ne ni mooy RTV. alhamdulilahi rabil alamin ñun ñëpp ñu bokk sant yàlla wax alhamdulilahi rabil alamin ñu dellu ko wax alhamdulilahi rabil alamin ñu ngi sant yàlla bu baax li ma xam ci bis bi bariwut li ma ci xam rek mooy ñun màggaluñ juddug yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñun jëmmi yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi lañuy màggal ndax màggal dafa am ay mbir yu tax ñu koy def benn da gis koo xam ne dafay màggal weer yonent bi sallallahu alayhi xam koo xam ne dafay màggal xatu yonent bi sallallahu alayhi koo xam ne dafay màggal bisu yonent bi sallallahu xam koo xam ne dafay màggal juddu yonent bi sallallahu alayhi waaye li yooyu yëpp benn boo ci màggal rek la nga la waaye ki waral bis bi màgg waral weer wi màgg waral xat mi màgg waral minute yi nekk ci biir ak seconde yi màgg kooku mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa kon ñun jëmmi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la màggal ndax bu tax doon jëmmi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba noon mukk nag duñ màggal bis bi ki waral bis bi xam nga xam ne su taxu doon ak moom duñ bind bis bi mu juddu bu taxu doon moom duñ bind semaine bi mu juddu bu taxu doon moom duñ bind weer mu juddu su taxu doon moom duñ bind xat mum juddu ki tax nag li tax ak ki ko taxal lu tax mu tax ak fi mu taxee rek Muhammad a tax kon nag lépp ñun delloo nañ ko ci Muhammad ibnu Abdallah di màggal yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam màggal gi ñu koy màggal nag màggaluñ ko ni ma la ko waxee ci bis wala ci heure déedéet ñun gis nañ ne rek tànk bu nekk rek dañuy màggal yonent yàlla Muhammad ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam su fekkoon ne bi ko yàlla xamal ci péep yàlla bi def ko xamal ta fekk bis xam kon danañ ko màggal ci bis màggal ko ci heure màggal ko ci saa waaye mbooleem loo xam mu ngi xamee ci yonentu yàlla muhammad gannaaw mboolem loo xam mu ngi xamee ci yonentu yàlla muhammad te gisuñ loo xam loo xam ci gannaaw yonentu bi lépp ñu ngi ko bindee ci leer yonentu yàlla muhammad kon ñun yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam la ñu màggal loolu daal lañ xam ci gàmmu loolu la ñuy tontee ci gàmmu ñaareel ba ci tegee liñ xam ci suñ soppe bi di Muhammadul Abdu ku baax la ku sell la ku tabe la waaye ku ñàkk kañaan la yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam daf ñu wax nañu laa yadxulu jannata man kaala fi qalbi miskaala sarratun min al kibri nee na du dugg àjjana mukk koo xam ne lu tolloog pépp sarra ci xañaan ak soxor mu ci sa xol bi nee doo dugg àjjana waaye ba ñu wëree fee xolam bi ba xol bi jeex gis nañ ne dara nekku ci loo xam ne soxor la wala lal na leneen lépp ragal yàlla rek lañ gis ci moom te it nag doon ni koo xam ne ku nangul la Lamine Jim Jaay la doon taalibeem xàqan di déglu ndigalam bàyyi ay tereem te arab ba dafay wax ne al intizaru la yadaru jëfee ndigal du lore mukk ta mos da lore mom nak sax na ci deglu ndigal li nga xam gor gi mu ko koy digal mu di ko def sax ci loola tam moy ko ben heure xam nañ loolu ci mom ku deggu la ku ragal yalla la bis bi su may bo na mom kenn moko sos taxawu ci def ci lu ne am na ñu ko jàppale waaye daj na ci lu ne mom kon nak ak deggum la ak yaatum ak melokanum su meloon neneen du demé ni waye kenn ku nek ni nga toll rek sa bis non lay toll kon nag ñu ngi koy ñaanal yàlla bu baax di ko sant di ko gërëm di ko wax ne alhamdulilahi rabbi alamin yàlla yàlla defal ko sutura di wax ne gàmmu gi gàmmu mën na koo gën a rëy waaye du ko gën a dis poids mën na koo gën a rëy waaye di ko gën a dis poids ndax gàmmu la goo xam ne ba lañ koy jàppat fekk ne yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa ñëw fi bu yàgg ànd ak Cheikh Ahmed Tidiane Serif tamit bu yàgg waaye muy gàmm goo xam ne gàmm ak garante la mbooleem koo xam ne daf fi indi jafe yonent bi tey dana ko garante te dana ko tampere te dana mat ba mu alhamdulilahi rabbi alamin waaye it la goo xam ne dafa ñëw pour xettali doomu aadama yi dafa ñëw pour dimbale doomu aadama yi dafa ñëw pour fekkoon xol yi gëlëm yu tilim yu sikk mu fomp leen raxas leen teet leen bañ tege ci ihdina siratal mustaqima kon nag mën naa laa wax ne gàmmu mën na koo rey waaye du ma d'accord mukk gàmm gu ko xëpp poids ndax gàmm gi yonentu yàlla Muhammad ak ca biir waaye kooku ñuy tuddee xatmul wilayatu sultaanul wilayatu baabul wilayatu miftaahul wilaya di Cheikh Ahmed Tidiane Serigne mu ngi ci biir moo tax gann la gàmm gi def kon nag loolu itam ñu ngi koy seede ci loolu bu baax a baax lii daal la ñuy tontu ci li ñu laajagum salaamaaleykum wa rahmatulah اللهم أنت الله ملك الحق المبين قدير متحسس بعصمته وكبرياء منفرد بالبقاء حي القيوم قدير مقتدر جبار قهار نسي لا إله إلا أنت ربي وأنا حبدك علمت سوءا وظلمت نفسي واقترفت بذنبه فاغفر لذنوب كلها في لا أحسن إلا أنت يا غفور يا سكور يا حليم يا كريم يا صبور يا رحيم بجاي سيدنا وسفيعنا ومولانا محمد ابن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق لخلق نور رحمة للعالمين السهور سابق لخلق نور رحمة للعالمين السهور يا شيخنا التجار يا قيس القلوب أما ترى ما ننفي من قلوب أما ترى دائما لسي أصابه وأنت قوس لم تزل مجاب بك توصلنا إلى النبي وبكمال ربنا حليم أتى ربي بمرضي العالمين والصلاة والسلام على فاتح أقفال على فاطح أقفال القدم ومخرج الوجود من طي العدم طاح الذي لولاه ما لم يكن آدم أصلا ولا خلقت له حواه سيدنا ومولانا محمد المبعوث للعرب والعجم وعلى آله وصحابته ذوي العلوم والهمم ورضا الله الأعم على شيخنا بحر الجود والكرم الذي ساد وأمد كل صفي وولي وعلم الخطب المكتوم وبرزخ المحتوم والخاتم المعمدي المعلوم سيدي ومولاي أبي العباس أحمد بن محمد التيجاني وعن جميع خلفائه وأصحابه وتلاميذه وعن أخص خلفائه ووارث سره وجهره حامل راية طريقته وصاحب فاضته أبي إسحاق مولانا الشيخ إبراهيم ابن الحاج عبد الله رضي الله عنه وبعد آه، حضرات الأخوات والإخوة وسيدات والسادة وسماحة المشيخة والفحولة الممثلين بيوتات الدينية والهيئات الإسلامية أزف إليكم بأمحض التحية تحية إسلامية طيبة وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ننصرف مباشرة من لغة العربية إلى لغة المحلية ليشارك الجميع بكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نمي نيب دي نوكل يب دي waxee ci jéem a tàmbali jotaay bi avant tout bala ñuy def dara dañuy njëkk def iftitaax ci kalimaatil quraaniya def ko ci ay ayaat comme ni ñu koy defee tabarukan ku koy taxawee muy Serigne Mouhamadul Haadi Touré di suñ mbokk ci daara mi nga xam ne waa Fass Touré la ku xam waa Fass Touré xam leen ci alquran Seydi Mouhamad bu fi nekkee ci moom la ñu defee iftitaax bi door a continuer programme bi euh, bu dee dafa sori mu jege. Euh, avant loolu tamit Cheikh Abdoul Aziz mu ngi wax ne wala boog Cheikh Ibrahim jaw mi nga xam ne mooy jiite programme bi mooy borom programme bi mu ngi ndokkeel ñëpp ñoo xam ne teew nañ fi. jàppalanteeg ñoom ci ay télé ak ay rajo maanaam média yu fi teew dalee ci 7TV ñu ngi gërëm bu baax a baax ak référence TV CCB ñu ba nga xam ne Cheikh Chouaïbou Diop moo ko jiite. ak mbooleem ñi nga xam ne participé nañ ci di jiit yi nuyu ak di gërëm waa koñ bi yëpp ba chef de quartier bi imam bi ñëpp ñu ngi leen di gërëm euh, duñ ci guddal dañuy jox kii mu def iftitaax ñu barkeeloo ko. لركنتنا برنامج الشيخ محمد الحادي توري الميكروفون الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد لله رب العالمين الرحيم yokk ci yàlla ak ñaam yokk ci jaam yàlla yi Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu wax nañu ne mbir moo xamante boo ci juumee doo ci am benn bàkkaar fekkee li wax dëgg la nga am ci tiyaaba loolu moo gën mbir moo xamante boo ci juumee am ci bàkkaar te fekkee li nga wax dëgg la doo ci am tiyaaba loolu may rek ak yokk fekkee naa gis Mouhamed mii nga defee kii wallaay kii de ku baax la kii ku jiw la kii jaamukat yàlla la bu fekkee ne amul sax doo ci am benn bàkkaar bu fekkee li nga wax am ci jëlee bu fekkee da ngaa gis la kii nu koy gisee nii tam naan la bu fekkee nekkul naan sàngara di am bàkkaar waaye bu fekkee nan naan katu sàngara la sax yow doo ci am benn tiyaaba doo ci am benn tiyaaba kon war nañoo rafet jotu suñuy diggante waaye rek war nañoo rafet jotu suñuy borom bi tabaaraka wa taala yoo xam ne wala yaxtab ba'dukum ba'dan aw yuhibbu ahadukum an yakula lahma axiihi nañ bàyyi di jëwante ndax jëw baaxut yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na benn jëw moo gën a tar fanweeri njaaloo ñu waxaat ci aay bi ñu koy tijjee ndax temps bi xam na. ne kalima yi léegi daal na ci xam ne wax naa leen léegi na leen. mooy zeynul majalis bi ki nga xam ne aalimul aamil la xam naa ko xam naa bu mu jàngee تعطينا الثواب وتمنحنا أشياء كثيرة والصلاة والسلام على رسول قائل وكل امرئ ذي بال لم يبدأ بسم الله وهو أبطأ وعلى آله وأصحابه الذين بايعوا ونصروه وعلى كل محسن بإذن السنة وإقماد البدعة والعوائد ذميمة إلى يبعثون حضرت سعادة وسيدات ضيوفنا الأكارم نقدم حول الرب الثاني سلاما معطرة وزيارة منمقة فنقول لكم السلام ورحمة والبركة يعم علينا وعليكم أجمعين gannaaw bi ñu sant yàlla di nuyu sallallahu alayhi wa sallam dañ daan miin saa yuñ teewee jotaay yu nii suñ amee kalima war ko yëkkati dañuy oo suñu rakk mu toog suñu pegg loo wax mu jàllale ko wala sax mën naa koo jàllale waaye nag incha allahu kàddu yooyu noonu la ñuy fàttali di ko continuer ngir lan li allah yaqtarum ci loolu kon nag laa gis ana fi jambika fu ñu def sukoon barakaatu mi ngi jël loolu ko tedd te gën a matale te gën mat ko jëmal suñu sëriñ. di si suñu sëriñ. ak Cheikh. Mouhamad Jim Ndiaye. di ñaan yàlla. yal na yàlla yokk wéram. yal yokk wéram. yàlla yokk fanam. yàlla yokk ijaabaam. yàlla yokk xabulam. di jël lépp nag. di jël ay rakam yu tedd yi. ay rakam yu tedd yi. Mouhamadul Mansour. Mouhamadul Mansour Ndiaye. Cheikh Mouhamadul Hamidou Ndiaye. Cheikh Mouhamadul Hamidou Ndiaye. Cheikh Madjid Ndiaye. ak doom bi nga xamante ni. ak doomam bi nga xamante ni. al waladu. al waladu. sirru abi. arab lay wax naan. ndax arab lay wax naan. walaysu. walaysu. yasru. yasru. sirruhu. lil faradi. gaynde. gaynde. mel rek. ni mel rek ay doomam noonu la ñuy mel. kii toog gaynde piir la ndax li mu fi wax ku ko dégg mën ngaa wax ne. saabun saabun saabun saabun bi manzirihi bi manzirihi sayxun sayxun bi mawqifihi bi mawqifihi laa yaqtani laa yaqtani biduna biduna yarda yarda bi muntabihi yaay xale la xale la si zahir si zahir jëmi mag. waaw oh, jëmi mag. la ko yàlla jox la ko yàlla jox. soo ko xoolee. boo ko xoolee. gis loolu gis loolu. soo ko dégloo boo ko dégloo. dégg loolu. ñu ngi koy ñaanal yàlla. waaye loolu yëpp nag. waaye loolu yëpp nag. Serigne Djib Ndiaye. Serigne Djib Ndiaye. mooy àll bi rek mooy àll bi rek. mooy àll bi rek mooy àll bi rek. dafa am genn góor. <coughs> dafa am lool. gu baax ay njabootam samp ku génn rek. ku génn rek. ab tuuti. ab tuuti. kenn génn keneen ab tuuti. kenn génn keneen génn. ñu ne ñeew gaa ngóob. rek. dem ba si kanam rek. nii. àll baa ngi nii sëriñ Jim Ndiaye mooy àll bi lépp lépp lu fi dajee rek lépp lu fi dajee rek mooy amul sëriñ Jim Ndiaye sëriñ Jim Ndiaye mooy àll bi ñëpp ñëpp si moom dong lañ xaj si moom dong lañ xaj xajul si ginnaaw kenn ku dul moom kon sëriñ Jim Ndiaye mooy àll bi lii nag lii nag ñu taxawal ñu taxawal amul benn mag amul benn mag si mag diine yi lu dul ne bëggoon na lu mel nii si la jeexal dundam si wàllu zaahir si wàllu zaahir ak si wàllu baatin Baye Sëñ Touba Baye Sëñ Touba dafa wax ne dafa wax ne dafa wax ne raamal waraa. raamal neel fadli. fadli. musri'ina lahu. musri'ina lahu. wal fadlu. wal fadlu. rasulullahi. inna moo damaa gis damaa gis damaa gis jublu penku. ñii jublu penku. ñii jublu xarfu. <coughs> ñii jublu xarfu. mu laajte fi ngeen jëm. mu sëñ Tuba ne leen sëñ Tuba ne leen taxaw leen taxaw leen fi ngeen jëm fi ngeen jëm foofu du foofu sëñ Tuba ñu ne ko sëñ Tuba nga neel bala nekk bala ne ko wuti si yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa Cheikh Ibrahim Cheikh Ibrahim wax na loolu wax na loolu nee na yéen yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa akli wa akli wa sarabi mooy sama lekk mooy sama naan mooy sama naan su weer yónni feeñee sax su weer yónni feeñee sax dana kañ boppam haniyan li Ibrahima laha hilaaluhu hilaalan bada li naasirina jamaaluhu kon lépp lu ma am lépp lu ma am mi ngi ko amee si yéen yàlla Muhammad loolu doyut maam wax na ko ne nee na nee na is kullu qalbin is kullu qalbin ahabal mustafa ahabal mustafa harumat harumat alayhi naaru jahimi wa huwa fi harami képp koo xamante ni nee na képp koo xamante ni sa xol yonent yàlla moom sallallahu alayhi wa sallam moo si jeex moo si jeex ëllëg boo dee ëllëg boo dee sa wàccuwaay mooy aljana loolu kenn nangu si dara loolu tamit la Maodo yëg la si Haaji Maalik yëg loolu la Maodo yëg loolu la Maodo yëg suñu papa. suñu papa. daa fonkoon trop benn way Maodo. dafa fonkoon lool benn way Maodo. demoon na sax. ba muy génn àdduna. ba muy génn àdduna. newoon na ma. newoon na ko. way bii foo toll. foo toll dama ko jàngal. Maodo dafa wax ne. Maodo dafa wax ne. walay sa lii. walay sa lii. amalun. amalun. amalun alqaaka yaa amali si wal maa bati wa taajali wa.

bàyyi doon ñaan yal na ko a ñaan gi de yal na yàlla dooleel leen yal na yàlla jox leen yal na yàlla xam leen yal na yàlla sàmm leen ñu bëgg nga taamu góor bu di tey gii ñu naan ko ci la ngay seet kër am ko am ko liggéey am leen jël leen yéen ko wér wér leen jël leen nga xam ne dañoo doon liggéeyanti bu borom bi sa ay léegam waay ay pass yoon waay daal di yoon waay dox di yoon waay lii di yoon waay lii di yoon waay doom di yoon waay lépp yaa yor ko da des ko dal sëriñ am na képp ko amin maa ngi ñaan di gën a day laay laay dala wax nga ko solo laay yàlla nga ko xajal yàlla boobu yàlla seen ko dal sëriñ yàlla yàlla sax di seen solo laay yow waaye su jëlee ko fii ma toog di wax ak yow ku teg lu ne may ñaar yàlla ca jëm ku la xool jëm ca ku la xool jëm ca wala wala wala wala jëm ñu ngi jëm ñu ngi jëm ñu ngi jëm dara di seen kuta yàlla ma ko yàlla mu yàlla def barke laa ilaha illallah barke ali babri ba barke taha barke yasin barke seydina aliyu sadu sahid abu ubayda barke muhammad rasulullah salaam aleykum wa rahmatullah kenn du ko gën kon nañ tegu ci digle yàlla yi bàyyi ay teram te nekk benn ñu ñu xam ne lii bi sallallahu alayhi wa sallam wax rek al muslimu mir'atu akhihi jullit mooy seetu mbokkam boo taxawee ci seetu nag boo xoolee bépp kaas-kaas bu nekk ci yow seetu moo la teewal kon jullit bu gisee ci moromu jullitam ak kaas-kaas war na ñëw ba ci moom jéeróog moom waxtaan ak moom ne ko ah man de gis naa nangam ak nangam ak nangam nangam est-ce que boo ko doxalewul nii moo gën est-ce que boo ko doxalewul nii moo gën loolu mooy jullit te ñun ñëpp ay julli leen ba wa rahmatullah. ba ñëw fi tey à cause de moom moo tax dëgg neexul ndax bu lekkee dëgg lekkee olom na ko gërëm a cooy kon na cooy baa ngi nii. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi am mbégte di nuyu waa référence TV. vraiment di leen ñaanal yàlla may leen ndam ndax ñun ci télé bi lañ bokk di am mbégte nag ci gàmb gi nga xam ne moom lañ ñëw tey mu nekk gàmb goo xam ne la sàkk Seydina Mohamed teew na Cheikhou Tidiane teew na Baye Niass teew na ñu am mbégte lool nag ci organisation bi nga xam ne vraiment Cheikh Abdou Diaw daf ko jël teg ko ci suñu kaw ñu organiser ko am ci ndam lu rëy rëy kon loolu rek la ñu sant yàlla am nañ satisfaction totale parce que ñëpp noonu du am lu fi waay indi dina aju sa aju dina faju ñu am mbégte lool nag ci ñaan gi nga xam ne nag cheikh bi ñaanal na ko waa référence TV ak waa 7TV parce que am nañ mbégte ndax tey ñëpp noonu du am tey bu gàmmu gi réussir dama naa ñun ñoo am ndam ñun ñoo am ndam tey ñoo ngeen jàpp ci te ndam li maag yéen ko bokk ndax am nañu noon vraiment du am kiñ ko jox xamuñu ko ki ko jox nangam ak nangam mais sant naa yàlla bi ñu yéegee ba ci cappaandaw la gàmmu gi réussir total à cent pour cent kon man am naa ndam Cheikh am na ñam Cheikhu Tidiane am na ndam Seydina Mohamed am na ndam waa référence TV tamit am nañ ndaw kon am nañ mbégte lool lool lool lool di leen ñaanal yéen waa référence TV. waaw comme ni ma koy waxee rek may wax alhamdulilahi rabbil na ndax ñëw nañ ci bisimilahi rahmaani rahim yàlla dogal na a ah, gàmmu gi jeex na ci jàmm ak salaam ñu jëlee fi nag mbégte mu rëy macha allah ndax tey moom yàlla kese ci lañ doon dox suba ba ngoon